salaamaaleykum Pod. maaleykum si moom euh, c'est mon frère. man moom dañoo yàgg et puis avant Pod et Marichou donc mu nekk sama frère ñu sikk jàmm boobu ba léegi dara musul ñaaw vraiment donc euh, bés bu ma am mu ñëw teew donc bésam moom mënuma bañ a teew. donc euh, mu nekk nit ku baax koo xamante ne franchement ah ça je le dis très sincèrement un homme au grand cœur nit ku baax béti de xaw ma ko mais xam naa ne am na jëkkër moom ça moom c'est sûr et certain quoi franchement parce que si moom y a pas meilleur homme quoi diggantaan non tey dama fi ñëw en tant que frère ami dëggantaan siir sama xarit la waaye parce que nit ku baax la donc euh, bés bu mel nii rek la mën a am donc un grand jour comme ça comme li ñuy wax rek bës souvent day wuyoo borom quoi donc si il mérite vraiment d'avoir un grand jour bu mel nii quoi. Euh, non si euh, avant Pod et Marichou lañ xamante tu vois donc ñu nekkoon ñoo xamante ne on était passionné si affaire ay euh, film ak série genre yooyu noonu donc ba ñu Pod et Marichou boolewaatee donc dafa nekkoon loo xamante ne lu yàlla dogal la ñu xam ne que si loolu la ñu war a mën a bokk mais tey maak moom on se connaissait bien avant quoi vraiment bu baax a baax a baax dañuy dëggante tous les jours événement bu am wala su amee benn acteur bu xewle da ngay gis ñun ñëpp dañuy tase donc Pod et Marichou moom yàlla moo def nekk nous sommes une très grande famille. voilà donc te siir si la bokk quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu moom c'est c'est quelque chose d'énorme et je pense que tey jii nii euh, loolu moo tax pot et Marichou nekk la grande série xam nga ñu ñu diviser quatre saisons ba léegi nit ñi ñi dañuy génn ñu ñuy laaj cinquième saison bi cinquième saison bi Pod kañ ngay génn ci prison bi la Marichou dugal donc loolu suspense la yoo xamante ne tout le temps ñun suñu gisee ne que série bi mi ngi am longévité boobu noonu vraiment dañ si kontaan ñu xamante ne que loolu c'est une famille bo parce que c'est rare nga gis lu lu série bu duré noonu quoi et ça franchement c'est quelque chose loo xam ne war nañu ko saluer quoi. merci. waaw waaw incha allah incha allah yàggatul bu baax a baax a baax. waaw man suulee si biir jël ba daal la ma la ma dugal. léegi luñ fay nekk ak maag moom moom loo xam naa ci saison 5 bi la koy gars yi di xam <laughs> jaajëf ba tey. delloo cher bu wér ñu ngi lay cher bu wér. jaajëfati non on est venu en tant que frère ah Sir c'est c'est c'est un frère boo xam ne tey euh, yàlla xam na ni mën nañ la ñoo bokk ndey ak baay tu comprends ndax peut-être euh, ci wàllum cinéma lañ xamante suñu relation fa la jóge mais tey dem nañ ba sekk relation yoo xam ni c'est hors les caméras hors du hors hors du cinéma amran ñoo bokk ndey baay dañuy demlante di dikkalante mu ñëw sama kër mooy ñëw këram donc du coup umpalewu ma dara ci moom umpalewul dara ci man donc kooku dem ngeen ba ñu loolu tey ay ay frère lañ ma weesu nañu ay frère lañ waat. waaw sama genre yi xanaa <laughs> mooy sama genre rek nee naa ko léegi yow léegi bu pare parce que ma demoon xaal Edu wala man mais damaa bëgg mu jox Edu ba pare après bu pare ci Edu rek doo ñëw ci man xam nga mais incha allah rabi yàlla na ko jig yàlla na sëy bi barkeel ba ñun ñëpp après mu wàllu ñoo jàmm incha allah rabi. bu neexee yàlla. est-ce que yéen yéen yi di ngeen di ngeen teel am choix ah. waaw mais xam nga sëy moom mbirum sunu borom la du lu nit du du du lu di wër ba kii ko walay demee noonu yàlla sunu borom mooy mooy boole ñaari nit ñu dem ba yàlla sunu borom dogal ci sëy donc nag ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla rek tase cee koo xam ne dëgg yàlla mooy doon ki ñu yàlla tànnal ba nga xam ne tey buñ ci duggee sunu borom dana ko mën a barkeel daal waaw dañ ndànk rek ndànk rek <laughs> ak Gaza jaajëf. <laughs> waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di sant di leen ziar waaw bon la Bari Sow Gueye un ami à Cheikh ami comme étant acteur ou pas. non bien avant la série ah Sir c'est c'est mon frère c'est c'est c'est plus qu'un ami c'est un frère waaw maa ngi moom moom lu ma wax sànq rek xanaa peut-être euh, caleçon rek lañ échangé teewul mais on a tout fait ensemble waay. waaw dafa mel ni yéen a lobby bi nga xamante ne yéen a ñëw avancé ndoo nekkandoo en même temps des acteurs. waaw daanaka sax mun naa ne moom moo ma dugal si milieu bi ah parce que yaatuwaayam peut-être moo tax man ma am si accès quoi parce qu'on se connaissait très bien avant ça fait longtemps depuis 2012 2013 si milieu mannequinat bi fashion day bi donc on a gardé le contact série bi c'est venu bien après waaw donc c'était bien avant c'était bien avant ça. waaw yéen ñaar lu lu seen relation même bi ngeen àndee doon série seen relation dafa gën a ratax ou pas. waaw parce que xam nga ñaari góor yàlla moom suñuy ànd ànd bi su dëggoo rek lépp dafay leer dafay feeñ da nga koy defee xol waaw te man li may li ma sekk ak Mouhamed en fait du du ay wax moo koy moo koy faj si xol la ko maanaam li ma yéene man loolu laa ko yéene xolam dafa rafet. waaw ah, et loolu noonu c'est pas des paroles quoi doo ko wax yëg-yëg la te yëg-yëg moom kenn mënu ko wax ba kenn mën ko xam mais sama sama xarit la sama gaayan la waaw au vrai sens du terme waaw c'est ça. Sénégalais yi bëggoon nañu série Nafi yaakaar naa ci Nafi lii la gën a xamee. ñu toog ba léegi ñu koy laajte lan moo tax Nafi série bi ñëwatul. waaw xam nga lépp day production daa am na muy doxee rek di nga def benn série boo xam ne peut-être tey euh, benn saison lay am mais bon yeneen def na <laughs> yeneen def na Adja def na récemment la série yoon bon c'était juste peut-être benn saison la woon rek moo tax quoi peut-être c'était ça. yow da am jabar wala wala wala amagoo. waaw non am naa soxna depuis waaw am naa soxna macha allah am naa soxna. <laughs> naka ngay fibré comme état nga am jabar par rapport ak am na ay jigéen yoo xamante ne mën nañu seen fan la. da nga nekk si yoon pour takk ñaareel ou pas. non <laughs> sama jabar doy na ma. ah parce que sama jabar elle elle comprend et c'est ma meilleure amie. tu jigéen moom soo ko jëlee taf ko sa wet rek je pense que doo leen réeroo. waaw parce que bi c'est juste une image ah c'est pas la réalité ma réalité bi may dund mooy lépp lu may def balaa dara sama jabar tu vois man ku may waxal sax su may waxee yow sama jabar mi ngi sama côté mi ngi sama wet toog donc dara ump ko quoi donc yooyu yëpp. amul amul problème si man quoi dama koy gérer. parfois du ay scènes yoo xamante ne mën na ko seetaan xaw si mer yooyu. non non non xam nga tout reste dans le cadre professionnel rek gis nga un acteur quand tu es professionnel dans ce que tu fais ak nu mu métti métti métti métti nit ki day comprendre parce que relation su communication bi baaxee ak confiance dara mënu ko ébranler donc c'est ça la base et base boobu noonu laay demee ak moom. mais li may wax sama xol laa ko jëlee te ça je dis ça ça veut pas dire que mosuñu am problème man moom ñu xuloo toog ay mois di xool mais suñu toogee ñu am ñaari jantal lañ ko toog te moom dafa nekk jantal lañ bëgg bi nga xam ne extraordinaire man at la bu neex ma may wax nit loo xam ne nekkul ci man c'est un cas avec un cœur en or man Seydina Mouhamed moom ma gën te nit koo gisee wax wax baax ak yem sa baax je le dis et je le dis au fond de moi c'est un gars extraordinaire li mu mën a mën man mënu ma ko si aussi je t'encourage et je te félicite parce que dinañ fàtte extraordinaire parce que nit soo ñëwee si këram soo gisee ñu la accueillir avec tout ça dafay wane lépp nous on est très fiers de t'avoir parmi nous je pense que tu fais notre fierté tu fais la fierté de toute la famille te li ma gën a neex kay nga sant ni man donc xam naa ne 53 waaw donc vraiment je vous félicite je vous encourage di la ñaanal di la ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan wér gu yaram eh, eh, bañ a guddal wax en tout cas beaucoup de bonheur yàlla na yàlla sa biir teg naa leen suñu bàcc noonu lépp jërëjëf soyez heureux et bonne fête avec mon frère allez merci à vous